Jokalante euh, Mekhemen El Hadj Mouhamadou Biteye. mbaa yaa ngi ci jàmm. bu baax a baax. alhamdulilah. jërëjëf mu mel ni yegsi nañu ci li gën a fës ci bopp yéen kaay ñu xëyandoo tey jii. Mhm. dañ koy tàmbalee ak Walf Fadjri quotidien. ma ngoog euh, Walf quotidien mu ñuy jàngatal wàllu koom ak franc CFA gi ban njeexital la mun a am ci gannaaw bi nga xamante ne ay réew fippu nañu beddeeku ca CEDEAO euh, taxawal seen AES yooyu la réew féete ci Sahel bi jàpp ne beddeeku gi ni mel mun naa jur njeexital yu a état bi bu ñu deful ndànk sax mun nañoo yóbbee ci dévaluation ndax koom nga ñu am euh, ci euh, CEDEAO gi mun nañ ko faf yóbbaale yooyu le réew féete ci Sahel bi yéene kaa bi di Walf Quotidien xëy duñu ko jàngatal mu ngi ñuy dektal euh, tolluwaayu nguuruk Basiru Jomaay Fay téeméeri fan yu mu matal ci boppu réew mi Bougane Gueye Dany yokk yekk lu mel ni xeme Ousmane Sonko waaye LD ñoom ñu ngi sàkku LD dëbbu sàkku ci Jomaay mu sàmmoon sàmmonteeg ay digeem gannaaw boobu faloogul ci réewum Sénégal kaay la la fësal euh, mu ngi ñuy dégtal El Hadji Mouhamadou bi tey Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp euh, téeméeri fan yoo xamante ne basiru Bassirou Diomaye Faye def na ko ci bopp réew mi euh, téeméeri fan yoo xamante ne ci gént kese la xamaguñu fan la teg seen tànk xamaguñu ban tànk la ñu jiital ngir doxal réew mi téeméeri ndaw ñoo xamante ne sànku nañu ci géej gi ci lu soriwul Saint-Louis Bougane Gueye Dany moo ni ne ci jamono joo xamante ne daanaka loolee soxalul Ousmane Sonko ak gouvernement am ña balek di euh, seet seetal ak yeneen ak yeneen ci jamono joo xamante ne doomu Sénégal ña ngay euh, faatu ci euh, ndox mi mbënd mi ne kat ne jon ba tax na bugaan gi dañuy wone jaaxleem lool ci tolluwaayu réew mi ak jafe-jafe yi ni mel. moom daal boolub 100 jours la ko yàqal daal. nangoog boolub 100 jours. acca kon l'évidence. nangoog l'évidence mu ngi ñu koy dégtal 100 jours yooyu le ci kilifteefu bopp réew mi Diomaye fay ak premier ministre am Ousmane Sonko bugaan gi dañuy gi ñu doon dig askan wi anamu ana fan la féete amagul lenn lu euh, tegoogum ci jamono ji askan wi mun cee teg seen gët Bougane Gueye Dany moo ni waxee. las yéene kaay las mu ngi ñuy dégtal Amadou Ba wax na ci looco yi ba ba tey mbëkk mi euh, jóge gu fi euh, ci lu yàggut lu toll ci téeméeri ndaw faatu nañ ci géej gi ba tax na amadu Ba jàpp ne jot na nguurug basiru Diomaye Faye jublu ci li ni mel ngir mun cee indi saafara saafara amagul nag ci mbënd ma ca Kaolack askan waa ngay xuus wàllu l'info mel ni ku woote wàllu ci jamono ji Bougane Gueye Dany ne na jot nañu wàllu askanu Sénégal ndax jaaxle nañu lool ci jamono joo xamante ne nguuru Bassirou Diomaye Faye am na téeméeri fan yoo xamante ne ñu ngi ci euh, gëlëm gu métte métti ak gënt Bougane Gueye Dany moo ni waxee jàpp ne euh, téeméeri ndaw loru nañu yàggul euh, ci biir ndox mi te ba léegi nguur gi jéemagu ci lenn rawatina Ousmane Sonko premier ministre yéen a kaabi di l'info xëy waxtaan ak Bougane Gueye Dany koy dégtal euh, njiital gëm sa bopp ne jot na mu woolu ambulance ngir ñu mun a sowe euh, Sénégal ci jamono ji ndax ci jamono ji waxtu la goo xamante ne du ngeneel ci tolluwaay réew mi téeméeri fan yi nguurug Bassirou Diomaye fay euh, def ci bopp réew mi xel dalagul ci réew meek fu mu jëm ci jamono ji nga xamante ne ay ndaw ñu bari ñu ngi jëm ca bitim réew jaaree ko ci locco yi te ña ngay di Babacar Diop di vice président bu dooleel Khalifa xam le ne itamit waxtu wa jot na jublu ca askan wi te njiit ma Ousmane Sonko wàññi wax di te eh, soobu ci jëf yéen kaa bi di sursaane ñañu jot a yëkkati eh, fan yi ñu weesu ca Colobane tàmbale naa jur coow am na ci ay jaaykat yoo xamante ne premier ministre mujjee na leen dalal ca eh, primature loole nag jaaxal ñenn ñi Cheikh Gawane Wade bokk ci ñoom ne yëfi politique lay nural ndax ña sooke mbir ya dëggantaan ca Colobane kenn woowu leen ci googu ndaje mu ngi ci yéen kaa bi di sursaane. yéen kaa yi le quotidien. ma nga ca Kafountine ca Casamanca jafe-jafe jigéen ña daanaka mënatuñoo dox ci seen soxla na mu waree ña ngi leen fay fitnaal di leen fa agressé ba tax na li ni mel nag la ñu gis ne war nañ ko dakkal ca na mu gën a gaawee ba tax na gendarmerie ubbi nag ceeb euh, enquête foofee ca euh, Kafountine mu ngi ci le euh, quotidien 24 heures yéen kaay ndox meek taw gi tàmbaliwaat ci nawetu ren ji nguur gi mu ngi ci masawu askan wi bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mi xamle ne nawet ak jafe-jafe ñoo ànd bokk jamono ji mun a ñoo taxawal benn projet goo xamante ne mun na euh, fee jëlee euh, mbënd mi tax na nag ñu ngi wu askan wi ne nguur gi du leen seetaan benn yoon ci euh, coono yi ni mel. ñu ñëw ci yor-yor bi. organe de presse yu bari ñu ngi dund coono ndax fisc bi maanaam lempo bi tegu ci seen ndodd te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye xam ne patron de presse yi dañ ko war a fay ca na mu gën a gaawee mu ngi ci yéen ak caabi di yor-yor bi. waxkat boo ko xojee nu muy def. Euh, xam naa ne ku ku ku ñu ku ñu xoj. <laughs> ah xam naa ne waxtu dina la jafe wax jafe la. waaw wax wax jafe la. <laughs> ay ci kon ñu dem Sud Quotidien. ma ngoog euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal jafe-jafe assemblée euh, nationale ba tey yëf ya yëmbagul ci règlement intérieur ga ñu ne daañ ko joyantiwaat ngir Ousmane Sonko mun na doon gan ca pencum ndaw réew mi yéen a cabinet mel na ni nag majorité ba ne ci assemblée nationale dañoo bëgg a jàmmarloog moom ba tax la jubloo ci liggéey gi mel. réew mi ko Vian. Euh, changement coppite yi am ci wàllu gendarmerie nationale yéene cabinet am na ci ñu ña ca bees lieutenant colonel Malick Faye euh, moo wutu lieutenant colonel Abdou Mbeng euh, ci légion ouest bu Ndakaaru moo fa bees moom lieutenant colonel Malick Faye. Le Soleil yéene Le Soleil mu ngi ñuy doomu Sénégal Momar Kumba Diop lay wuyoo rongoñ daal na suuf université addina gi jooy nañu kàngam doomu Sénégal Momar Kumba Diop yéene cabinet moo ko yëg liggéey ci xëtam bu njëkk gannaaw génn àddunaam ñu ñëw ci bés bi le jour. bés bi mu ngi ñuy dégtal dossier bu yéeme lool ay jigéen ñenn ci ñoom euh, ca Casamance di jëfandikoo li nga xamante ne mooy euh, tababa tababa nag dañ koy booleek drogue di ko jëfandikoo ngir neexal seen sëy ñu bari ci ay jigéen nag ñu ngi cay sànku ba tax nañu ñenn ca góor ña ñu ngi sàkku euh, ci waa kër docteur ñu jël matuwaay yi ci weer rawatina bàjjenu gox yi xamal leen ne ñu bari ci seen sëy ñu ngi tas ndax googule tababa gu ñuy booleeg drogue bi waa kër yi tamit docteur Abdoulaye eh, Diop wax na ci ne buñ ko bawul mun na leen yóbbee eh, cancer gu doy waar mu ngi ci yéen bi di bés bu le jour. Euh, suñu lamb. Ah, suñu lamb El Hadj Mouhamadou bi tey combat royal goo xamante ne eh, face to face gi jot nañ ko amal Modou Lo mi ñu ne tàng na jëpp ci jamono ji Siteu nag ci jamono ji euh, mel ni lu dara xewul ci google googule combat euh, xamle na itamit ne bu arbitre sifflé euh, lu mu gis mooma moom Siteu moo ko xamal Modou Lo xam Lo xamle na itamit fa mu tegoon tànkam jëm ci amal jéego ci lamb ji du ko teggi benn yoon ñaari combat yile nag ban taxaw seetlu nga ci mën a def élage waaw xam nga nag xam nga nag combat Modou moom ñi meetuma cee wax ndax gone gi dafa doy waar lool lool lool lool moom daal oh. <laughs> moom daal ba après combat rek combat Modou Lo daal ku ciy wax ku ne dangaa dëgër fit rek moo tax man la ku ciy wax ku ne hmm. dangaa dëgër fit rek combat Modou Lo moom boo bëggee dégg dëgg hmm. buñ la ko laajee hmm. neel ba ñu bëreeg jàmm rek loolu daal mooy wax ji kon ñu seetaanandoo mais Abdoulaye wax nga tabaaba démb moom lañ doon waxtaanee tabaaba euh, ñoom xooluñ ci sax ci neexal seen sëy waaye daf leen di jox bànneex ñoom seen bopp loolu lañ ci jublu voilà te loolu itam mi ngi leen doon jural ay infection gi yeneen yu ni mel mm-hmm. mu nekk mbir moo xam ne lu doy waar la te yaakaar naa ne kilifay réew mi daan ci jóg balaa muy uppi loxo jërëjëf Abdoulaye Bopp mbokk yi ma fàttali leen li gën